salaamaaleykum mbokk yi tey ñu ngi fii ci marché Petersen doon seet ci population bi pour waxtaan ceeg ñoom ci affaire campagne bi ak violence bi ñu laaj leen seen gis-gis nu ñu gisee campagne bi ak violence bi ci am. population bi ak campagne bi ñuy démarrer ak violence yeeg soog yi ci am accident bi yooyu loo gisee population bi ak jamono ji Sénégal toll ni waaw donc élection moom dafa nekk loo xamante ni lu war lu war la ci réew. ndax réew dañu ci war a def élection chaque moment mais nag su ñëwee ñi nga xamante ni alors que ñoom ñooy xëccoo ñoom benn lañ alors que dañuy xiiroo ŋaayoo mais su élection yi passé ñoom ñooy àndaat seen biir kon ñi nga xamante ni ñoom ñoo ciy topp ñoom ñoo war a am expérience bañ a nekk di def benn violance wala ñu toog seen kër yi su élection jotee ñu dem votel ki ñu bëgg pas ñu nekk di xeex ak di xuloo wala ñu ciy rey ay nit wala dara parce que mbir mi Sénégal parce que bakkan dafa fort ñu ne élection yi dañ ci def benn loi boo xamante ni kuñ ci ray yaay perte lool du yoon ndax bakkan dafa nekk loo xamante ni lu foor la war nañ xoolaat ray yi daal te bàyyi doomu jàmbur yi ñuy sacrifier du yoon. léegi yow boo doon joxe sa xalaat lan ngay jox conseil ci ñuy ànd ak euh, candidat yi ak ñuy jàppale population kii bi dem campagne. waaw ñu am fulaak fayda gis nga man duma topp nit. ci ñaak fayda sooy topp nit ki da ngay koy topp ci fulla ak fayda parce que soo demee na la fulla yóbbu nga dem bu mbaay def sa li ngay def su ñibbi jotee nga ñibbi man du ma xeexal kenn su élection jotee na maa moom sama carte ku ma neex ma sànnil ko mais du ma nekk di topp kenn di xeex kon am naa ñi nga xam ne dañuy topp nit ñi di créer ay violence di profité di sàccaale yëfu jàmbur et tout c'est normal fii Sénégal la quoi benn réew mu ndaw la kon nag am na yoo xamante ni xaju fi daal ñu ngi lay jaajëfal bëggoon nañoo xam kan ngay voté. waaw non ki may voté nag c'est discrètement. ah jaajëf ci sang bi.